Cheikh Faye laa tudd. Euh, ñu ngi fan fii Daaray Gébu commune de Touba Fall. fii la ñu nekk ñaat mook Touba 17 kilomètres la. mook Jumaa ja 17 kilomètres la Darou Aman 17 kilomètres waaw. yéen euh, lan ngeen euh, xewle ba tax na ngeen ñun daal tàkk-tàkk lii moom lañ xewle ñun suñ fii daal mën naa ne la daaw ba ren mbooloom ñun fi yor mu tàkk daaw ba ren nag laa la luñ kooruk daaw la ko commencé. ab ajjuma deuxième ajjuma comme nii moom la commencé woon parce que ñii ñu wax ak yow loo fi gis nii ginnaaw gi la fi nekk waaye lépp a tàkkan liñ fi defaata nii gis ngeen lépp a tàkk amul lenn lu fi des waaw liñ fi yoroon ci bagage ak ay xaalis ak lépp tàkk na ba jeex waaw tàkk na ba jeex tàkk maanaam daa koorug daaw daal la commencé woon moom waaw waaye fii nii lakk gii nii daal moom fukki fan ak juróom mën na ko ban jógee Daaru Muxti ajjuma ji ci njëkk ba suñu jonni tey amul bis bu mu xëy te amul fii tàkkaat na ba jeex tàkk ñu defar ko mu tàkkaat waaw. lan koy waral. ah li koy waral kay ñun jaaxal nañu ndax gis nga ko nii da ngay jékki-jékki rek seen fii tàkk te doo fa gisu xal doo fa gisu dara jékki-jékki ñun la ma ngay tàkk dong lañ ci am ci beneen xalaat lu dul jékki ñun la tàkk na kese lañ ca am waaw amuñ ci beneen xam-xam dem nañ ci maaman yi ñu yaakaar fu ne dem nañ fa jabar bu ne taxaw nañ fa waaw leer na paa bii xam na ci dara jabar bu ñu yaakaar dem nañ fa waaye du teel luñ mën a jabar bi mu mujjee dem démb xam nga lu ma wax gàllaaj yi ngeen di indi di ko fa def bëccëg moom lay bañ lu ngeen indi it ni ngeen bàyyi ba timis timis ngeen ko fay def démb ban ko defee bi ma ñëwee ci heure yi accès ma te teewul bi ma tuuti kër gi tàkk na kër gee tàkk tey ci suuf xëyee bi ndaataan naan nga fi tàkk na gis nga fee yéen a gisal seen bopp fële fa lañ jóge moom it ndi ngi leen yor yor ba li ci ëpp ay bagage lay taal ay bagage daal moom la ëpp lu muy taal ay bagage daal ak néeg ak lu jur war a lekk moom la lu muy taal waaw. tey lu ngeen di ñaan kay mooy ndimbal rek ku nu mën a dimbali lu ñu dimbalee rek ñu xam ne loolu lañ dimbali waaw loolu dong daal lañ ci aman ci xalaat yu ni nañ ci loolu daal loolu nag lañ ci jaaxal. non non fii moom kenn kenn amuñu fi ay ñàkk seen bakkan moom kenn ñàkku fi seen bakkan moom kay bagage a fi ak ay matériel rek waaye nag wax dëgg jur sax deewu fi déedéet jur sax ñàkku fi bakkanam wax dëgg yàlla. dund tam nag ñàkk na fi ndax keene moom peppam daanaka mën naan la bari na ca lu lakk kër gii nii mooy néeg ya doon lakk barki dem ab dundam moom it dacaa lakk euh, ndox mun fay lakk ndox mun fay lakk yomb li muy xelli dafa yeex am na robinet waaye robinet yi gaawut waaw robinet yi tuuti lay xel xelli robinet yi mënuñoo fayu lakk waaw jërëjëf euh, Pape Pape Balla lay nuyu bu baax di masawu bu baax nag waa dëkk bi di Daaru Rahman Fall village Darou Rahman dans la Darou Rahman Fall dans la commune ñu gën ko xam ci daaray Gépp di dëkk Serigne Cheikh Fall Mbawor taalibe yi dëkk fi mbokki dëkkandoo yi dëkk fi muy lu doy waar loo xamante ne nii yaakaar naa lii moom yéen ko gisandoo bi ñu agsee nii dañu toog ñu ñuy nettali ni mu demee ñu jékki-jékki am mboob mu fi tàkk suñu kanam te xamuñu la moo ko mu ngi nii di tàkk fayagul muy lu metti 15 jours a ngi nii yu nga xamante ne nii ñoom ci lii la ñuy dund bu ñu defaree ba dëkkandoo yi ñëw jàpp ci ak mbokk yeeg ñëpp lépp lu ñu dajale defaraat seen kër mu tàkkaat léegi nag suba ñu woo ma ne ma ah monsieur le maire ñun de affaire bi jaaxal nañu dem nañu fu nekk ci maamën yi partout mais li ñu amoon lépp def nañ ko ci taxaw nañu nag amatuñu fu ñu faut autorités yi ñëw jàppale ñu raison pour laquelle moo tax ma woo leen ne nañ ko médiatiser nag ndax aussi eh, ñoom lépp lu ñu amoon dem na ci dëkkandoo yi lépp lu ñu amoon jàpp nañ ci si lu ñu man ak lu ñu mënul te bi continuer di di yaa di taal di dem léegi nag loolu ma ci woo ñëpp autorités yi ñu ci mën a jàpp dimbale leen te yàlla tax dimbale leen franchement ñu lépp lu ñu mënoon aussi def nañu ko mais nag gis ngeen ko nii te kenn xamul kañ lay kañ lay arrêté. tey vraiment ndax euh, ci ci dund soxla nañu ko bu baax a baax wàllu euh, euh, vêtement ay yére soxla nañu ko wàllu dund jur gi soxla nañu ko ndax nee nañ loolu rek lay taal en général ñoom sàkket yi moom day taal sàkket yi dem néegu ñax yi dara taxawutu fi seen yére yëpp làkk na seen dund làkk na dund fas yi ak mbaam yi lépp làkk na. ku leen si loolu nga leen di xaalis dinañ ko jëriñoo soo indilee mboog loolu soo mën a indi loolu mën a indi aliment de bétail ak lépp lu mën a ñëw rek ñoom dinañ ko jëriñoo donc moo tax may lancer appel ñëpp autorités yi ah ñu ci woo aussi kilifa diine yi ndax ci weeru koor la ñu nekk waa Touba ca kanam kilifa diine yëpp ñu ngi leen ci woo di leen wan lii ne ñi soxla nañ dimbal moom bu baax a baax a baax a baax voilà nañ waa Touba ci kanam li ñuy def wala ndimbal surtout ci social ci koor gi nii ñu ciy aussi Xaadim Ndiaye action sociale mun naa dinaa ko wax ko ko moom itam voilà